jom ak diine moom lay waxtaane oustaz Pape Hann maa ngi lay nuyu alhamdulilahi rabbil alamin di mbokk yi julli di kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di nuyu ñi nga xam ne ñooy soppe émission Sira Sira di nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi am mbégte di teelu émission bi nuyu nañu waa Sénégal nuyu nañu diaspora bi nuyu nañu sama naatandoo oustaz si fi nekk ak ñi nga xam ñoo nekk ca TFM religion di leen ñaanal jàmm ñoom oustaz mbay samay xarit ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal kenn lu jàmm te xam naa ne mbégte bi bokk lañ ko ak ñun ndax bu ma teewee rek teewal naa oustaz yëpp. macha allah jërëjëf jërëjëf bu teewee teewal na oustaz yëpp. Mhm. waaye kii boo xoolee xar-xaru kanam bii nga xamante ne nii min na xaala laahu xaala rasul oustaz ba Hann mi ngi waxtaan ci diine mi ngi waxtaan ci ngor émission bu mag boobu wax na ko léegi léegi siira mais oustaz. Mhm. actuellement nag mi dafa jaxasoo. Mhm. jaxasoo jaxasoo goo xamante ni mar de Italie mu am jàngoro joo xam ne nag daa fi ci mi ñu koy wax coronavirus. dégg nga lool. waaw dëgg naa ko euh, xam nga jàngoro bu nekk ak tuuram bu ñëw. Mm-hmm. ci jamono yonent bi amoon na yee jàngoro. Mm-hmm. waaye xeet bu nekk ak nañ koy tuddee. dëgg la ci jamono yi sëñ Babacar Sy rabbil taala anhu mm-hmm. amoon na fi jàngoro bu ñu doon wax peste. peste ba De waxee Charles de Gaulle. damay yónnee ndaw ci sëñ Babacar Sy rabbil taala ne ko ah sëñ bi de am na jàngoro boo xam ne. mu ngi dugg ci réew mi dañu bëggoon nag nga def ci ñaan xam nga jàngoro bu nekk dafay am dayoo ak ci at bu muy dugg ci jamono yonent bi amoon na koo xam ne euh, dafa amoon tuuti jàngoro bu newoon ci loxom mm-hmm. xam ne loxo yi day tooy ba nga xam ne bu la ko joxee mm-hmm. nga jax moom loxo ya mën na laa wàll mm-hmm. ñu ñëw dem ci yonent bi ne ko ah kii day day jaay waaye dafa am jàngoro bu ne ci loxo yi dañuy bañ nag bu la joxee loxo mu wàll ko waaye boobu sallallahu alayhi wa sallam ne ko mun nañu jëndante ci kàddu ci kàddu laa ilaha illallah mun nga maa jaay ci kàddu ma jënd ci kàddu bu ñu jógee am ku dox suñu diggante dëgg la loolu yëpp ci fàggu la ak prévention mm-hmm. gis nga boo xoolee tubaab yi ni ñuy doxalee mm-hmm. l'islam tënk na ko lu yàgg mooy prévention mm-hmm. ak li nga xam ne moom mooy hygiène ak santé parce que xam nga euh, suñu borom dafa ne balaa ngeen di julli na ngeen set. dëgg la waaye ñaata yoon ngay laal ndox ci bés bi boo yeewoo fajar yaa ngi jàpp. Mm-hmm. boo tisbaar yaa ngi jàpp. Mm-hmm. takkusaan timis ba geewee. Mm-hmm. kon ndox boobu di laal sa loxo di laal sa gémmiñ say tànk ak fépp mooy wane na cet gi ci boppam bu nekkul ci yow munoo jàkkaarloog suñu borom. dëgg la dëgg la bu set gi nekkul ci yow munoo jàkkaarloog suñu borom. jërëjëf oustaz Pape Hann waaye dana ma am loo xamante ni dañu ko bëggoon. rawatina groupe bi bëggoon ko GFM bëggoon ko. ñu gis ostaas yëpp nag wax dëgg yàlla ni lay dégloo dégluwuñ ko kenn sa émission boobu sira ñu koy teewlu maari di taay waaw nu <laughs> gis nga fee nga xamante ne ni mooy faan waaw wax dëgg yàlla pour ostaas ba anga demal nu fa waaw euh, yoon us aan euh, euh, yàgg naa leen fan yàgg naa leen conférence al ah, alhamdulilah femmes yi nekk aan fan fan mooy association des des des sages femmes. des sages femmes defal naa leen conférence def naa fa émission sira mm. kon foofu buñ ma fa yebalee pour ma def fa conférence mm-hmm. euh, dama ci kontaan wara euh, jërëjëf xam naa ne nag doo fa def émission ah. li nu bëggoon mooy dugg ci biir hôpital Fann ah. fa malaat ba ne ñee nga xamante ni nii noo corona ñu isolé leen nga waaxu daw dugg ci ñoom jox leen loxo jàpp par jàpp waxtaan ak ñoom laa mission ñoom boo xam ne boo toggee émission sira mën cee jox askan wi leçon lii daal aan bëgg nun ko ndax gis nañu sa ñàngale gis nañu sa diini gis nañu sa xam-xam gis nañu sa yar non seulement boo waxee askan wi dégg la te émission doom ñëpp a koy seetaan sira sira ñëpp a koy seetaan xam nga yàlla dafa wax ne xaru xaru ab jullit du xaru jullit du xaru waaw doone xaru du jël comprimé rek naan ko déedéet xaru du jël buum yeew ko sa baat mm. xaru du jël paaka jam ko sa xol waaye xaru ngi ci fekk foo xam ne bu ñu ne boo fa eggee maar day taani mën nga faa dem ak bakkan waaye doo fa génn ak bakkan mhm. loolu boo ci demee sa coopare bopp yaa ngay xaru ah. te ab jullit bu xaroo kenn du ko jullee nga ni ko jullee te lii nga wax nii wax dëgg yàlla néew dem fa xaru la waaye yaakaar naa ne docteur yi ñoo ne nañu sorante te moytu dajaloo bi mhm. te bañ a joxante loxo kon ku mhm. tëdd feebar yor jàngoro bi mu munoo koy jox loxo munoo koy joxaat nga demaat di toog ak nit ñi. kon gànt taxaw na sama diggante hôpital Fann. waaw kii damaa gis ni wax dëgg yàlla hôpital Fann yàgg nga faa waare. association ya fa nekk wax dëgg yàlla. man de wax dëgg yàlla du ma la sax dagg du la dagg. Mhm. waaye dama bëgg nga téyel ma wala man ci li ma mënee. man naa faa dem ci kaw ci la ma mënee. ci la ma mënee nag te jàng ko. Mhm. ndax ñun ay ustaas nañu. du ma oustaz médecine. Hmm. du ma oustaz mécanicien. doo mécanicien du ma oustaz boo xam ne réparateur rajo la déedéet du ma oustaz boo xam ne sama xam-xam dafa màcc ci tabax bâtiment. déedéet oustaz laa ci lii nga xam ne ci laa jàng. muy soppi yonent bi. ndax ndax mën naa laa dee yow doomu Tiwaawan nga. Hmm. ah bi allah ayi waaw man kon jàkka laa dëkk. kon jàkka yëkkatin ma benn ma wan la. bilaal mi laa bilil sa laa bilaal mi laa. jullit ah ah ah ah bilal mi daa bilal mi daa bilal mi daa wasamanakal taala bartalan taala bilal mi daa ulil daa bilal mi daa dama ne nit ki doo ko dugal ci loo xam ne bu fa duggee des fa yow mi ko fa dugal nga daw bàyyi ko fa loolu ab xaru la bilal mi daa milil bara bilal mi daa yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana ñu ko sopp yëkkati leen loxo ca kaw moo ñu gën moo leen gën moo ma gën moo gën géer gi ma nekk moo gën samay mbokk ak samay ñëpp kon kooku yëkkatil bilan bi daa ulul fara bilan bi daa waa ah waxat ma na hmm. taxi ma na hmm. mënta la hmm. daw ca ba ngay am ay tànk bilan bi daa ulul fara bilan bi daa eh yonent bi nee na nangul ki mën te bañ a xeex ak moom ndax gàcce mën na la caa fekk. Hmm. te ab jullit du tooñ te kenn du tooñ loo ab julit bilal mi daa bilal ma laa bilal mi daa. nañ ko daan. bu fekkee ñoo ko mën moom corona. Hmm. waaye bu fekkee ne corona la mën bu la naree daan xaru bilal mi kon ki yebal pour nga dem mooy ki la poussé pour nga xaru. Hmm. moo tax mu ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. bilal mi daa ulul mara bilal mi daa. Ah? Eh. Eh. Eh, ah. ah. bilal mi daa ulul mara bilal mi daa. moo. eh ah. ko bilal mi daa ulul mara bilal mi daa. ko ri na. bilal mi daa ulul mara bilal mi daa. virus baa ngoog.